Nah. When the person you saw at mile two prison looked everything like a person who was tortured, do you have any reason to think why he would do that? Nah. any guess any reason ndax am ben benn xalaat li waral pour mu wax ne moom loxo laalu ko dara jotu ko eh, te yow dem nga ba gis nga gis na ko ak la ko dal ndax di nga am xalaat lu tax muy wax façon wax yooyu wala muy wane ne moom dara jotu ko bañ ko woon. yes um, during the course of being in mile two. waaw da jamono yi nga xam ne maa ngi nekk mile two. Um, I had had chance to sit and talk with him and just about everybody else. munoon naa toog waxtaan ak moom comme ñeneen ñi fa yëpp. And I noticed from our conversation that he was very protective of President Jammeh. And I wanted to know for what reason after the treatment that he had received from this man. So I remember very well asking him. And I ask everyone else that had our wives been responsible for bringing us into mile two, which one of them would still be married to them? And we all said, oh, we will divorce them. Then I turned to Tomong Tamba.

President Jammeh has a right to be president for 30 years. President Jammeh am na cër bi pour nekk president fanweeri at sax. Just like President Jawara. Comme ni ko President Jawara nekkee woon. And I came to understand. ci laa dal di gëm nag ne. The issue, the idea of the presidency to him. Mom, yi nga xam ne halati di president ci moom ni ko gisee. was a family thing that belonged to them mbiri eh, and they have to protect one another from eh, outsiders. ku ci dafa sa morom ci loxo ñi nga ci gi. so I understood from that view. Eh, ci jamono boobu nag ci laa gëm gis-gis bi ne. he would never publicly criticize President Jammeh. Mom, du musa toog ci ndaje di ŋàñña President Jammeh.